waaw kay asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp ax te di leen baal tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal euh, tey dañoo indi woon ab jàngat jàngat bi jëm ci euh, mbir mu mbirum kooku ñuy wax Salman Rushdie ak attaque boobu nga xam ne moom lañ ko attaqué ak li nga xam ne moom mooy li ko jur. Salman Rushdie nag xëy na du ñàkk am na ñu ko xam euh, ab bindkat la boo xam ne ma Inde la cosaanoo yàlla dogal mu bindoon ab livre boo xam ne mu ngi tuddoon les versets sataniques comme li ñuy wax ayat ya soo ñëwee ci olof ñu koy firee aayaay shaytaane yi mu bindoon ab livre nag tuddee woon ko noonu les versets sataniques mu nekkoon livre boo xam ne daanaka fiction la euh, bim ko bindee nag mu juróon ay coow yu baree baree baree bari ci yenn dëkk yi ci foofu mu dëkk sax ci Inde ca boppam euh, ba waa Iran maa ku ñu wax Khomeini ci 1989. mu tëraloo mu defoon ab fatwa daanaka daganal ci dereetam comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee ci yenn kuréel yi léegi yàlla dogal moom mu mu exilé woon foofu ci Angleterre par la suite mu dem États-Unis yàlla dogal fan yi fan yi ci ginnaaw ndax maa ngi bëggoon a def sax jàngat bi ci weekend bi mais yàlla dogal ki yitte xawoon a bari Euh, ci fin de semaine bii ñu génn yàlla dogal am benn attaque bi ñu ko attaqué foofu ci New York euh, ba xaw ko ca gaañ te li waral loolu ni nee nañ mooy fatwa ba nga xam ne moom lañ defoon depuis 1989 te li waraloon fatwa ba mooy livre boobu mu bindoon di les versets sataniques waaye xam nga comme li nga xam ne moom laay wax rek li may bëgg jamono bu ne mooy nit ñi nañuy jël seen temps di gëstu ndax fii jamono toll lu bari gëstu ko jafeetul ndax yàlla dogal ne yii ay sujet la yoo xam ne man yàgg na maa ngi ciy wax depuis at mais ay mbir la yoo xam ne yàgg naa man sama bopp di ko gëstu xëy na nag par la suite bi yàlla dogalee ñu yeewu ci alxuraan ci lañ comprendre lu bare bare bare bare bare bare ndax Salman rushdi loolu nga xam ne moom la bindoon livre boobu tuddee woon ko les versets sataniques loolu ñuy wax les versets sataniques dëgg-dëgg lan la dafa am benn wax boo xam ne dañuy wax ne yonent bi ci sootu najj mi ci foofu nga xam ne ci lay wax ci manaat laat ak kiintu di yàlla yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ci waa Xuraysh dañuy wax ne ni ko niñ koy nettalee nag ñoom ci histoire ñu ne waa Xuraysh maam yéefar yi dañoo ñëwoon am nuñ doon waxeek moom ngir mën a am benn compromis benn déggoo ci benn mbir ngir mu respecter li ñuy wax seen yàlla yi te loolu yaakaar naa ku nekk ci ci réew mi sax mën nga ko comprendre comme ni nga xam ne ñoo nekk ci yenn kuréel yi ni nga xamee ne sooy wax waxu yàlla wala ngay wax li yàlla wax faaw comme ni ma koy waxee waxu yàlla moom wax la joo xam ne fu war a tegu rek lay tegu fi mu war a jaar rek lay jaar. léegi nag fa jaar su fekkee ay nit tàllaloon fa seeni loxo wala seeni tànk su ñëwee moom ca digg ba rek lay jaar ñenn ñi nag su boobaa day mel ni ñoom dañuy jàpp ne yow wax yii ngay wax day viser ñoom seeni kilifa te loolu nag nekkul ñu nekk ci li ñuy tuddee tarixa yi ba ci ñu nekk ci ahlu sunna wal jamaa ak lépp da ko ci gis li ñuy wax salafiya comme li ñu wax salafiste yeeg yëpp nga xam ne am na wax yoo xam ne soo ko dee wax dañuy gis ne kii day attaqué dañuy attaqué wala day attaqué suñuy kilifa wala nangam téere yi nag loolu mel noonu lañ nettali dañoo gisoon ne yonent bi ca la nga xam ne moom la doon jottali ci waxu yàlla day tuutal wala mii xeeb wala muy attaqué seeni yàlla comme li nga xamee ne su dee fii it nit ñi dañuy gis ne nit ki sooy wax li yàlla wax dangay ngay attaqué ñoom seeni kilifa te fekk ne ay nit su fekkee ne dañoo am ñu ñu jàpp ne ñoom ay yàlla lañu wala jox leen cër ba doonte tudduñ ko te ñenn ñi sax dañ koy tudd. doonte tudduñ ko waaye ñu bëgg leen a jox cër booba nga xam ne yàlla képp lañu ñu war a liggéeyal ci kaw suuf ñoom ñu gëm ne am na ñeneen ñoo xam ne ñoom lañu ñu war a déglu seeni ndigal ak seeni tere am na ñoo xam ne ñoom lañu ñu war a liggéeyal ku dul yàlla su boobaa dangay gis ne même taxawaay ba moom nga fay gisaat ñu ne nag bi loolu amee ñoo ñu doon sàkku benn ak déggoo ngir moom mu bàyyi loola ñu ne nag biñ ko waxee ñu ne seytaane moo ñëw wax yu yonent bi moo ñëw wax yu yonent bi ay aaya yoo xam ne day mel nii day yëkkati seen yàlla yooya di wax na sax seen ay wax ne sax seen yàlla yooya maanaam mën nañoo ràmm nga xam ne noonu la demee soo su ngeen ko gis soo di ngeen ko gis léegi nag loolu taxoon ñu maanaam ñi tuddoo islaam ma meloon ci lool def ay manifestation def lu ne bañ defoon ci ab fatwa ba daganal dereetu Salman Rushdie mooma ginnaaw gi Angleterre la nekkoon waaye jóge na Angleterre te fatwa boobu depuis 1989 soo xoolee loolu fi mu toll nii yàgg na mat na 33 ans ci ren yàlla dogal attaque bi doog a am léegi mu nekkoon Angleterre par la suite mu dem États-Unis ba yàlla dogal attaque bii am fa. léegi li mat a xam te nga xam ne moo tax sax dëgg-dëgg ñuy def jàngat bi te yàlla dogal na sax nekkul yoon wu njëkk ñu nekkul yoon wu njëkk ñuy wax ci xeet yi ndax am na ay jamono ci ginnaaw yàggul dara bi fii caricature yooyu amee defoon nañ ci benn genre audio moom ci chaîne bi boo xam ne ñu ngi ciy wax ci loola maanaam wax yi nga xam ne dañ koy moo xam nit ñi dañ koy wax ci yonent bi wala mu nekk ay caricature yi nga xam ne dañ koy def mu doon lu ñuy dessiner par exemple wala comme mu nekk ay dessin yu satirique wala loo xam ne nit ñi dañ koy def mu mel nii dañ ci ŋàññi yonent bi moom ci boppam léegi caricature yooyu comme ku melni Salman Rushdie di bim bindé lolou ñooñ dañoo gis ne maam caricature la ndax ku melni yonent bi shaytané mënul am ci mom wàll ba diko wax yu ay aya bam koy duggal ci alquran shaytané wax yu nak lolou xamna na ñen ñu suñ ko déggé manam mën na mën na nekk lu bees ci ñoom ay comme li ñuy wax rek manam su fekkee ne nit ñi dañoo miin di déglu li nga xamne mom la nit ñi daan wax bien avant ci diine mën na leena bet waye ku dem ci alcorane du le bet mom wax yu mom lu muy firi moy comme li ñuy wax inspiration te ku dem ci alcorane sotu an'am aya 121 di nga fekk yàlla di wax ne muy surat 6 aya 121 inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim manam shayatin mi shaytani ñom dañuy wax yu di jëme ci seeni gaay kon seytaane ñoom ñu ne seytaane moo wax yonent bi ay aaya léegi nag gaa yi gis na loolu tuutil yonent bi la wala boog loolu loolu ak ŋàññi la wala ab xas la ci yonent bi ndax yonent bi yonent bi yàlla la seytaane mënul am ci moom wàll maanaam ba di ko wax yu ay aaya ba mu koy wax mu mel ni loolu lu yàlla jàngaleel boppam la te léegi maa ba ñenn ñi def ci ay fatwa maanaam ba mu maa ba mu jur la mu jur ci ginnaaw gi ba yàlla dogal fan yi ñu ñu attaqué ko maam jam ko ba gaañ ko comme ni koy comme ni nga xam ne noonu lañ ko wanee ku setaan image yi di nga ko gis waaye li ñu bëggoon a bàyyiloo xel nit ñi jamono bu ne ñi nga xam ne yàgg nañoo seetaan vidéo yi ñoom dinañ xam te dañ ñun dañ koy faral di fàttali lu bëree bari manam caricature ci islam caricature ci islam duma wax sax caricature ci islam waye caricature ci yonent bi yonent bi nak entre guillemets parce que damay wax ne nit ki naka nga meuna nango ñu def ab dessin bind na le prophète wala bind Muhammad yow nga gëm ne sa yonent la yow ndax ki koy dessiner mom da ko mësa gis wala dafa xam na meloon wala nangam ba tax muy def lola kon déjà nit ki nangu gi muy nangu ne kooku ab yonentam rek dama gis ne loolu loolu problème la ci boppam balaa dara di xew waaye caricature ci boppam euh, da ngay gis ne maam ay at ngi nii moo xam li xewoon Charlie Hebdo moo moo xam euh, soo xoolee même bu yàggul dara maam premier ministre bi Inde mi Modi li nga xam ne maanaam moom la. maanaam euh, li li nga xam ne moom la waxoon jamono bii te nit ñi doon ci réagir yàlla dogal na am na ci vidéo yu weesu am na ay audio yu weesu ci jamono bii sa maa ngi ciy def allusion ci loolu maanaam ku ci dem di nga am loo xam ne yow sa bopp war ngaa xalaat waaw yonent bi moom lan moo tax ba nit ñi fu ñu toll ñuy ñëw di ko caricaturer wala di wax ci moom ay wax. ku melni Salman Rouge di dem bané sax yonentou bi dafa am ay aya yo xamné ci misal mom wax ko li wax les versets sataniques mu melni yonentou bi dafa am ay aya yo xamné ne ci bopam moko wax yu ak yi nga xamné nit ñi mom lañuy wax ci mom di wax naan pédophile la woon ñi naan obsédé sexuel la woon ñi naan ab brigand la woon ñi naan ñi di wax naan sanguinaire la woon yoy yep nga xamné nit ñi dañ koy wax ta sa yuñ ko waxé ñi tuddo islam di tubaka dal wa lan mo waral nit ñi di wax li loolu lu ko waral loolu maa ndax dafa ndax dañoo xëy rek maanaam nit ñi commencé di di wax naa ne yonent bi par exemple ma seytaane da ko wax yu woon ay aaya li ñuy tuddee les versets sataniques waaye boog dañoo xëy rek par exemple nit ñi xalaat nii rek xëy créé ne yonent bi pédophile la woon wala dañoo xëy rek ne yonent bi ñu tudd waaye waaye ndax boog dañoo xëy rek nit ñi xëy créer ci seeni xel ne yonent bi sanguinaire la woon wala boog kii ñu ab brigand la woon wala boog moom yonent bi ab obsédé sexuel ki ki obsédé sexuel la woon ndax nit ñi dañoo xëy rek di xalaat yooyu di ko wax loolu dëgg-dëgg lan mooy cosaan li am na sax boo xam ne amoon na fi bu yàggul mooy ki ñu wax Moustapha Jaxate loolu mu doon wax ci waajuru yonent bi nga xam ne loolu yàggul dara ba ba maanaam ba juróon ay indignation yu bare bari fii ci réew mi ku ne di wax ba mu génn jéggalu comme ni nga xam ne ñoom noonu lañ koy waxee ma maa dëgg-dëgg lu waral loolu lan moo ko waral lan ndax ñooñu ñoo créer loolu wala loolu dafa am fu ko jëlee xam nga li may faral di wax mooy maanaam ñooñu nga xam ne ñooy def caricature yi da ngay gis suñuy wax dañ naan ay noonu islam lañ te fekk dañoo war a xelaat mais ñooñu li ñuy wax noonu loolu fu mu jugee est ce que nit ñi dañoo tëb nii rek xëy créer wax yooyu di ko wax wax yooyu lan mooy source bi lan mooy cosaanam ndax lool alquran moko wax wa dafa am ay téré yo xam mo wax lool ba tax ñom ñu mëna tok fofu diko wax ba ñi di def ay caricature wa ñu ci jouer sax ay film comme li ñu wax ma li ki amna ben film bu tudon ma l'innocence des musulmans l'innocence des musulmans Ah. parce que ñun ñii ah, ñun ay 2017 defoon nañ vidéo defoon nañ vidéo yoo non 2017 2000 2015 2016 début 2016 waaw ah. ñu ngi boo xam ñu ngi ko tuddee woon l'imposture des chefs religieux et l'imposture des chefs religieux et l'ignorance des disciples boo xam ne noonu lañ ko tuddee woon mais par exemple soo xoolee kii li nga xam ne moom la wax nga xam ne dañu leen tuddee. ay eh, comme comme ki nga xam ne moom moo joué woon moom moo génne woon film boobu euh, léegi maa tuddee woon que l'innocence xaw ma l'ignorance des musulmans nga xam ne boobu it juróon na fi ab tollé nit ñi di wax lu ne maanaam nit ñi dafa am maanaam ay ay mbir yoo xam ne ñoom seen bopp dañ ko war a gëstu lan mooy cosaanu wax yooyu nga xam ne nit ñi moom la ñuy wax ci islaam du ma sax ci islaam ci islam dinay am yenn saay ay wax yuñ cay wax waaye wax yi nga xam ne tamit moom la ñuy wax ci yonent bi nga xam ne saa yu xewee am na fan yee yàggul dara ñu ngi wane benn jigéen bu dëkk Nigéria defoon naa ci sax ab audio xam naa après incha allah dinañ ko publier fekk am ku ci waxoon benn commentaire mel ni dafa bëgg a saxal mel ni dafa bëgg saxal ray googu nga xam ne moom lañ ray ndaw soosu ci ne wax joo xam ne waxoon ci yonent bi xawma ci islam. nga gis ne lan moo tax ba yu mel noonu saa yu amee nit ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def ñu ne dañ leen a war a rey dañ leen a war a def lii dañ leen a war a def laa donte nag xam nañ ne maanaam nit ki sa gëm-gëmu moroom war nga ko mën a respecter waaye nag ndax respecter sa gëm-gëmu moroom war na tee ngay wax dëgg ndax dëgg moom soo ko waxee fu ne rek ku nekkul ci dëgg day gis ne moom dañ koo laal. réew mi moom lu ci bari sax sooy wax dangay ngay dégg ñu naan la maanaam nit ñi dañoo war a màndu may leen màndu mooy wax dëgg ndax yaa soo demee ci alxuraan yàlla si wax ne wa ida xultum faadilu walaw kaana za xurba te su ngeen di wax na ngeen màndu donte seen woy jege ñaare lañ kon su ngeen di wax kon lu ngeen di wax su ngeen di wax wax leen dëgg wax dëgg gi mooy màndu gi waaw kon maa wax dëgg mooy màndu wax dëgg nekkul xam lii dëgg te doo ko wax ngir bëgg lu neex ay nit wala ngir bëgg nit ñooñu jàppee la ab mbokk wala ngir bëgg nit ñooñu maanaam may la jàmm du loolu wax dëgg dëgg kenn mooma ko kudut yàlla nit ki su ko waree wax da koy wax te jëmm yàlla rek tax waaye dëgg-dëgg lan moo waral ba maanaam mbiru caricature yooyu saa yu amee rek nit ñi di tëb di réagir di wuta dal ci ñi nga xam ne ñoom def caricature yi te ñoo ñi nga xam ne ñoom ñooy wuta dal ci ñooña li gën a doy waar loo xam ne ñun dañ koy faral di fàttali mooy xamuñ ne te loolu xëy na ñu baree baree bari ñi nga xam ne li ñu wax amuñ culture comme ni ñu ko gars yi di waxee culture islamique maanaam comme ni ko di waxee ah culture islamique maanaam ñu bari ñi nga xam ne amuñ culture boobu suñ déggee yenn yi dina leen jaaxal ndax damay wax ne. man dama seetlu ne ñii tuddoo islaam ñoom liiru ñoom ñoom téere ya ñuy wax ne dañ koo gëm moo xam mii ñu nekk ci ahlu sunna wal jamaa wala ñu nekk xëy na ci ahlu chia ñu ci bari ci ñuy ñi nga xam ne dañuy tuddoo mbir yooyu même soo demee ci kuréel yi sax loolu moo ci nekk ñu ci bari ñu koy tuddoo sax xamuñ dëgg-dëgg maam kuréel yooyu téere ya ca nekk lan la ñuy wax léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy génn di kaas di indigné wu di défé affaire est-ce que xam nañ ñi wax yi ñi wax wala dessin yi nga xam bi lañ koy réellement est-ce que xam nañ parce que par exemple ku Salman Rushdie les versets sataniques Salman Rushdie créé wu Salman Rushdie la ko te ki nga xam ne dañuy wax ne moom lañ njëkk a xam ci ku bind ci loola mooy ki ñu wax ibnu ishaq nga xam ne daanaka dañuy wax ne téeméeri at ginnaaw yonent bi ci booba la judd loolu la ñuy wax nag laa wax <laughs> gars yi dañ lay suñ la waxee ne la par exemple maanaam diw mii mu ngi juddu téem maanaam at sàngam ginnaaw yonent bi duñ la wax kañ lañ njëkk a gis téere boo xam ne dañuy wax ne ibnu ishaq moom moo ko bind loolu tamit lu mat a bàyyi xel la ndax su ma leen joxee exemple comme par exemple ci ki ñu wax Buxaari yi xam nga Buxaari yi yaa ngeen dégg may wax ne Buxaari yi presque deux cents ans après yonent bi ci la judd te mu ngi juddee Buxaara loolu lañ wax nag ñoom ñu mu ñuy wax ne mu ngi juddoo Buxaara Buxaara mu ngi bokk ci Ouzbékistan nga xam ne léegi actu nga xam actuel Ouzbékistan mu ngi nekk ci Asie centrale moom foofu la cosaanoo foofu la jóge mais Buxaari yi moomu nga xam ne téereem soo demee ci waa ahlu sunna wal jamaa dañ lay wax ne mooy téere bi gën a wér ginnaaw alquran xam nga suñ la waxee ne la Buxaari yi deux cent ans après yonent bi ci la juddu da ngay jàpp ne kon téereem bi kon deux cent ans après yonent bi boobu la fi nekkoon ba léegi déedéet fekk ne téere Buxaari yi ñoo ngi njëkk a gis téere boo xam ne dañ koy askanale ku tudd Buxaari yi deux cent trente neuf ans après bi ñu waxee ne Buxaari moomu dee na ça veut kon soo xoolee diggante téereb Buxaari bi ñu koy njëkk a gis deux cent trente neuf ans <laughs> nga xam ne presque loolu soo xoolee maanaam douzième siècle la douzième siècle xam nga loolu yàggul douzième siècle yenent bi mu ngi fi nekkoon au septième siècle te kii ñu ngi njëkk a gis ab téereem 12e siècle, 13e siècle. 12e siècle 13e siècle parce que si fekkee ne 200 ans après début bi la juddu bi ñoo ko gis 239 ans ba tey it seen i téere ñoo kenn ku ci dem mëna dem gis ko ba paré téré bi gis 239 ans bi ca 200 ans plus 239 ans c'est égal à 439 ans presque 500 ans. ginaaw bi fi yonent bi bàyyi ko lañ njëkk a gis téere boobu te bañ koy gisit téere bi nee nañ ginnaaw gi amoon na lu mat treize versions yu wuute treize versions yu wuute treize versions yu wuute yooyu ku dem ci maam comme ku ñuy wax ibnu hajar al asqalaani ci téereem bi moom ci boppam wax na loola ba wax ne moom version bi nga xam ne moom la tànn dafa bàyyi ko ci koo xam ne ñoom ñaar ñoo bokkoon maanaam pas-pas ci yenn gëm-gëm yi nga xam ne dëgg-dëgg macha allah noonu la demee léegi nag su fekkee ne par exemple ki ñu wax ibnu ishaq nga xam ne sax soo xoolee ci gars yi nañuy tëralee seeni at dañuy wax ne moo fi jiitu buxaari yi mooma ibnu ishaq moomu moom ca boppam nga xam ne li ñuy wax histoire yu yonent bi daanaka dañuy wax ne bokk na ci ñi ko njëkk bind su dee sax nekkul ne moom moo njëkk a bind loolu mom sax daanaka ko lu ay netale rek ci le sukkandiku comme ni nga xamni ni Napoléon noonu la ko waxe Napoléon dafa waxoon ne histoire manam ay katch yu ñu dajale la yo xamni ñun ñepp dañ cee d'accord <laughs> moom non la ko waxe won ah mom non la ko waxe won yo xamni histoire ay katch yu ñu dajale la yo xamni ñepp dañ cee d'accord amna ñi koy waxe ne ñuy wax ne l'histoire est une féerie de mensonges sur lesquels on est tous d'accord nga xam ne moom comme genre boobu noonu la ko waxee yoon moom mi ki ki ntu mi Napoléon léegi ibnu ishaq moom moo bindoon loolu ci téeréem te ginnaaw bi mu ko bindee am na ñeneen ñoo xam ne ñëw nañ bindaat ko ñoom it ñu ne ku ñuy wax ibnu saad moom it bind na ko ku ñuy wax tabari te ngeen faral di dégg maam tafsiru ta ki ki tafsiram mi at tabari moom it bind na ko ama tamit ku ñu wax tamit Zamakhshari moom it bind na ko te loolu téere yooyu sunni di dañ koo gëm ñoom téere yooyu sunni di ñoom dañ koo gëm ñii tuddoo islam comme li li ñuy wax ci nettali li ñuy nettali ci histoire yonent bi daanaka nga xam ne ci ibnu ishaq moom lu ci bari ci moom la jóge daanaka presque ñiy doo islam ñu ci bari dañ ko gëm te soo demee ci téere yooyu daanaka ci la ñuy wax loola maanaam ci la ñuy wax ci la ñuy wax ne yonent bi maanaam seytaane da ko dugalaloon ay aaya ba moom mu waxoon ko ginnaaw gi bi mu ko defee ñu ne suñ borom ci la ñëw maanaam dindi aaya yooya ba sax di ko indil lay ba sax di ko indil lay ci alquran ci aaya boobu yàlla di wax ne wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiin illa ida tamanna alxa sheytaanu fi umniyatihi fayansaxu llahu ma yulqi shaytaan summa yuhkimu llahu ayatihi wallahu alimun hakim ba fa aaya yooyu yem waaye ñoom aaya boobu rek lañ jël donte nag loolu moom wax dëgg yàlla saxul waaye ku dem ci alquran yow di nga ko mën a gisal sa bopp boobu mu ngi nekk si surat 22 aaya 52 wa ma arsalna min xablika min rasulin wala nabiin nga xam ne ñoom soo demee ci ñoom exactement ñoom loolu lañ lay wax te loolu ay nit dañ koo reprendre comme ku mel ne Tabari moom wala Ibnu Saad wala Jamaxsari ñoom dañ koo reprendre ñoom seen bopp léegi nak ñu dem ba ay siècle après ku ñu wax Salman Rushdie ñew inspiré wu ci lolu histoire bobu manam jël ab livre bo boo fiction la jox ko titre bobu les versets sataniques ñu ne léegi kooku moom waratula dund dañ ko wara a mu melni koku mom mo créer créé histoire bobu wala mo créé récit bobu mu nek lo xam lu problématique la lo xam nit ñi ñom seen bopp waroon nañoo toog di xalaat mais lan moo tax ba maanaam gars yi seeni réaction du ñu réagir mukk ci source bi waaye ci ñi nga xam ne ñoom ñooy relater la source ba di wax ñoom ci kaw ñooñu la ñuy dal <laughs> mu nekk lu maanaam ñoom duñ dal ci kaw source yi waaye ñay relater wala ñay rapporter la source yi di wax ñoom ci kaw ñooñu la wut a dal takat source ba ñoom dañ koy gëm. gëm nañ source suba waaye am na wax yuy génnee ci source suba bugguñ ku ko wax ba ku ko wax sa jàpp nañ ne yow da ngaa war a dee yow mooy comme li nga xam ne moo am nii ci Salman Rushdie da ngay gis ñu naan waaw noonu islam liñ ko def baax na ci moom nangam nangam xeet boobu te yooyu yëpp ay problème la lu mel noonu amoon na fii Sénégal di kii histoire professeur boobu Sankharé man maa ngi ku professeur Sankharé émission boobu nga xam ne Sada ci la ko invité woon. yaa dogal na man guddi googu bi émission bi di am ci 2STV man seetaan naa ko instant biñ koy dawal man seetaan naa ko mais bi ma koy seetaan dégg mi wax parce que boobu yàlla dogal na alxuraan mu ngi commencé di ci man bi ma ko déggee parce que xam naa ne bu fekk na ma xam ne ma ci islam continuité la bi ma déggee moom muy wax loolu dama ne ah mais kii dafa am lu mu xamul rek parce que lim xamul mooy maanaam moom ña ñuy tudd di wax na ay yonentu yo jiitu lañ doon wax. lim xamul moy yàlla ma yoni won ña jitu ñooñu mo yoni yonent bi te islam continuité la mais ginnaw gi nak ci la deg nak ciow li nit ñi di ci wax lu ne man mi ci jamono bobu déglu na ben radio ben guddini nii xaw nu tudd kii nu tudd xaw ma alxamis ci guddi di la am ben radio ay nit ñi ci wote naan waaw nañ joxe dok tabbat ya da nangam nangam xet yoy mën xolal ni rek. yow fim mu fi ngay nek jàng fi ay tabbat ya da ta yàlla xam na ne lool yàlla la koy sédelo ni la ko waxe won yàlla xam na ko boobu man kese maa koon déglu guddi la bi ma koy déglu ñu naan ay tabbat yadaa ma ne xoolal ñii rek fi mu toll nii la def di fi wax naan ay jàng tabbat yadaa ñu xëy waa ji dee ñoom ñu jàpp na ñoo ko rey te fekk ne waa ji waxtu deewam dafa jot su ko defee bàkkaar ba nag ñoom ñu gàlloo ko nag jàpp na ñoom def nañ ngóore te fekk na seen musiba lañ def ndax ndax ñoom mënuñoo jëriñe mënuñoo lore waaye dañuy gëm ne ñoom ñoo lore comme ni nga xamee ne noonu la ñuy gëmee ne dañuy jëriñi te loolu ak réer gu mat sëkk la te pourtant sànqee li mu doon wax li waroon kay nit su ñëwee wax dara ci xam-xam mais corriger leen ko xamal ko mais sax comme ñoom bokkute li ñu leen daan jàngal mais ñoom gëm nañ ne yonent bi mënul indi loo xam ne nit ñi dañ ko daan wax bu njëkk ba nangam nangam te fekk na yonent bi islam tàmbaleewut ci moom moom continuateur la. mais commencé wul ci moom kon kay la nga xam ne mooy la jiitu te yàlla di ko nettali ci biir téere bi suñ demee fekk ci téere bi loo xam ne nit ñi doon nit ñi daan nañ ko wax ca la jiitu loolu kay war nañoo mën a xam ne loolu mën naa ne waaye ci moom la ñuy dal di ca wax lu ne ba ginnaaw gi yàlla dogal la muy dogal ca kooka te yii yëpp di ay problème yoo xam ne soo xoolee ñi ci ëpp li ñuy coow. la seen téere yi jàngale sax xamuñ ko te da ngay gis ay nit ñoo xam ne dañu leen jàppee ay borom yi xam-xam ñu ñëw toog dafiy grand mbubb ak mbaxane nangam di ci wax wax yoo xam ne yow sa bopp soo yow yow sa bopp léegi nii rek ma ku dem ba yeewu ci njàngaleem yàlla ñooñu soo toogee xool leen da nga naan ñii lan moo leen daloon ak lan mooy seen problème parce que ñun suñ lépp foofu lañ ko jàpp ci esthétique. nit ñi ñëw nii wax ay benn ba suñ ñëwee wax benn baatu arab wala ñaar ñu ne ah macha allah kii borom xam-xam te fekk la ñuy wax teguwul fenn réer gi fi ne nii sax ñoom ñoo koy entretenir parce que loolu mooy seen fond de commerce ci loolu lañu bëgg a dund te la seeni téere di jàngale ay nit di ko wax ñuy dal si kaw nit ñooña di leen sikk naan waaw ñii nangam ñii nangam xamuñ ne loolu seeni téere bopp ñoo koy jàngale am na ay téere yu ñuy wax ne ñoom gëm nañ ko téere yooyu ca la ñuy jàngale loolu. motax miri ci boppam dafa nek lo xamne nit ñi dañ ci wara bayyi xel ndax bëri waana lu ñuy dégg suñ ne par exemple yonent bi nga dégg ñu naan yonent bi obsédé sexuel la woon nangam nangam xéet yooyu ñu naan ñii liñ wax dafa ëpp nangam nangam te pourtant loolu ñuy wax ne dafa ëpp te mu nekk lu ëpp waaye lu jur wax ja wax jooju dafa ëpp te dëgg la lu ëpp la ndax kenn ci ñun su sañoon duñ ko wax ci waajuram waaye est-ce que xam ngeen ne loolu wax naa ko ci video yi trent 35 waxoon naa ko ci ku dem ci téere sunit yi seen téere xadis yi di nga fa fekk ay wax yoo xam ne ñu koy wax ci yonent bi kum ci doonoon sa baay wala mu doonoon ci sa maam doo ko wax ndax suñu yonent bi ab obsédé sexuel la woon lan moo jur ba les maam ba ñooñu di ko wax ñoom ñoo xamle ci seeni téere ne yonent bi amoon na lu mat fukki soxna ak benn ñii ne juróom-ñeenti soxna ñu ne soxna yooya guddi gi dina am waxtu woo xam ne ñoom ñëpp dana leen wër ba bëccëg gi it dana am ñoo xam nga xam soxna yëpp guddi gi dana leen wër bëccëg gi ñoom ñëpp dana leen wër saa veut dire que dina def ay tuuru ay soxnaam ci guddi gi def tuuru ay soxnaam ci bëccëg gi te lii ku am xel soo ko déggee est-ce que mën nga koo nangu ku am xel soo ko déggee doo ko nangu parce que soo ko xoolee ci sa bopp rek bañ ko est-ce que yow sa bopp am nga temps boobu yow ba yonent bi moom amoon temps boobu mu mel ni moom yàlla liggéeyloowu ko woon dara mu mel ni moom ku amoon jot la dara waru ko woon est-ce que loolu jarul nit ñi di ci xalaat mais lu ëpp ci nit ñi maanaam texte yi sax xamuñ lu existe la parce que duñ ko dégg duñ leen ko wax duñ ko dégg duñ leen ko wax xam nga su boobaa suñu waxee ne ay soxnaam guddi gi da leen daan wër ci benn waxtu muy fukki soxna yi wala fukki soxna ak benn wala juróom-ñeenti soxna yi bëccëg gi da leen daan wër ça veut dire que guddi gi dina def tuuru soxna yëpp bëccëg gi def tuuru soxna yëpp xam nga nit mën na ko dégg na ah mais lool nu mën a nekkee xanaa kay au moins ay soxnaam dina am ay jamono yoo xam dinañ gis baax wala nangam ma li njëkk a wax mooy. lam doon dund ca biir këram nit ñi su fekkoon ne dañoo yem fi yàlla yem suñu yoon du ca ne ndax yonent bi amoon na vie privée am te yàlla am na cër bu ko jox xam nga dañuy faral di wax loolu soo ñëwee di wax li yàlla wax dañ naan yow gëmoo yonent bi may leen yéen xamu leen yonent bi ñi ko gëmadi te joxu ma ma ñi ko gëmadi te ñàkk koo jox cër dëgg moo ñi bind seen téere yi. ñi gëmadi yenent bi dëgg dëgg dëgg dëgg te ñàkk jox cër yenent bi dëgg dëgg dëgg moo ñu bind seen téere yi ndax bari waa na lu ñuy nettali ci yenent bi lenn képp moo taxoon ñu koy nettali nettali wuñ ko de ay wax yu ñu sos la nekku na yenent bi lañuy nettali ay histoire am loolu ay sos la woon sos yooyu luñ ci jublu woon seeni ñoom seeni vice wala seeni pulsion wala buur ya nga xam ne lañ nekkoon ci seeni kuur lañ daan def tañ bëggoon ku ko daganal ci ñoom ñooñu lañ doon jaar ñu koy daganal te suñ koy daganal ci yonent bi lañ koy jaare dañ naan yonent bi daan na def nangam suñu siiwalee ne yonent bi jëlee nañ ci diw te loolu ñoom ñoo ko daan créer chaîne de transmission loolu euh, ki euh, c'est de transmission yooyu te loolu ku gëstu da nga koy gis loolu gars yi daan nañ jël ay nit ñoo xam ne da ngay ñëw créer benn chaîne de transmission

léegi ci ñooñu la ñuy jaar ñoom ñoo indi ay texte na yonent bi waxoon na nangam wala nangam wala nangam ngir bëgg a saxal loolu léegi nag ñoo xam ne xaalisu àdduna yoo xam ne àllu àdduna moo taxoon ñuy sosal yonent bi ay wax ngir bëgg a daganalal ay buur la nga xam ne moom lañ daan def te jaaduwut ndax comme li ma wax léegi soo ñëwee ne waaw mais loolu nu mu mën a nekkee bi xanaa ay soxnaam ñoom daawoon gis baax wala nangam donte loolu suñu yoon newu ci nag. seeni téere koy jàngale li téere yi jàngale laay wax pour ñoom pour ma bëgg nit ñi xam ne li nit ñi di wax ci yonent bi ñu koy tuddee caricature créé wuñ ko ñi koy wax créé wuñ ko dafa am fu mu jóge te fi mu jógee yeneen ko gëm jàpp ko jàpp ne lii lu wér la te yàlla gëm gëmloo wuleen ko ndax yàlla day laaj ana ban xadis dañuy gëm ginnaaw moom xadisam di ay waxam moom ku dem ci surat 45 verset 6 ya ko fay fek tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi fa bi ayi hadithin ba'da allahi wa ayatihi yu'minun li de ay aaya yàlla yu ñuy tari ci yow ci deug ana ban hadith ngeen gëm ginaaw yàlla ak ay kemanam ginaaw bi yàlla waxe ne mo wacce gën jaa rafeti xadis ci surat 39 verset 23 ginaaw bi yàlla waxe ne ana ku gëna dëggu yàlla ci hadith ci surat 4 verset 87 mu nekk loo xam ne lu kenn ku ci ne mën a vérifier boppam la ci yàlla wax allahu nazzala ahsan al hadisi sura 39 verset 23 wa man asdaqu min allahi hadithan ci maanaam surat 4 verset 87 te su dee ay nettali comme ni nga xam ne ibnu nu tur kem maam kem ni nga xam ne ibnu ishaq nettali yooyu muy nettali naan yonent bi nee nañ nee nañ bi lii amee nee nañ bi lii amee yàlla ci boppam mooy wax loolu wa man asdaqu min allahi xiila ana ku gën a dëggu yàlla ci nee nañu ça veut dire su dee ay nettali ana kan moo gën a dëggu yàlla ci nettali amul te histoire yii yàlla nettaliwu ko fenn nga xam ne ay wax la yoo xam ne dañ koy créer maanaam léegi wax yoo ñu créer nag ay nit ginnaaw gi dañuy ñëw di ko rapporter nit ñi di dal ci kaw nit ñooña di leen taxe lu ne. di def ay fatwa di daganal seeni deret alors que en réalité xamuñ ne li dafa am li dafa am delu way dafa am fu mu jugee ndax comme comme ndax comme so xoy limay wax ne comme yenentu bi comme man par exemple xana kon su daan wër noonu xanaa ay soxnaam daaw ngiss bax may len yent da xamul seen téré yi ñoo jàngale ne ay yenentu bi ci boppam loo xam ne yàlla da koo tere mu leer naa ci alxuraan jigéen su gisee mbërëg nañu leen beru sori leen yàlla wax ne yàlla wax ne faatazilu nisaa fil maxiidi wala taqrabuhunna beru leen jigéen ñi ci mbërëg te bu leen leen jege ñaar yëpp di ndigal ñoom ñu ne yonent bi ay soxnaam suñu tollaan ci mbërëg daleen daan wax ñu jëfandikoo benn sër bu ñuy wax isaar lu mel ni benn genre euh, loo xam ne benn genre sër bu ndaw loo xam ne da koy loo xam ne da ko daan tegloo seen kaw ngir mën a jëflante teg ñoom te yàlla wax ne faataziluun nisaa fil maxiidi beru leen jigéen ñi ci mbërëk wala taqrabuhunna te bu leen leen jege ñoom ñu ne yonent bi ay soxnaam suñ tollaan foofu daaw leen beru te daaw leen sori lii nii rek képp koo xam ne boroom xel mu sell nga te nga xam lu xew xam nga ne yow mi dund te nekk borom xel mu sell sax yow loolu xelaatoo ko def te moo ne soo leen demee ci téere yi fekk ko ci ku dem ci incha allah sax danañ leen dugalal référence yooyu ci seen xadis yi ku dem ci vidéo 35 ci commentaire yi sax dugal nañ fa yenn ci xadis yooyu yi nga xam ne mooy ñëw di wax lii nga xam ne yàlla day wax lu leer nañ ci alquran seen téere yi ñëw jàngale le contraire ne yonent bi da ko daan def mu nek lo xamne ne lu leer nañ la ndax lol ñu wax ci Salman rushdi ne ay yi nga xamne shaytan moko moo ci mom lol ku dem ci alquran yàlla da ko dàq complètement ndax ku dem ci sootu ndax ku dem ci sootu Israaïl mi sourate 17 nga dem ci aaya 73 lu commencé ci aaya 73 yàlla wax na fofu ne wa in kadu la yaftinunaka an alladi awhayna ilayka لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك xalila nga xam ne la nga xam ne les versets sataniques bu ibnu ishaq loolu lay wax nee na ginnaaw gi nga xam ne maam yéefaru xuraysh yi dañoo kontaanoon ca moom àndoon ak moom su jóot te loolu yàlla da ko dàq ci aay bii nii rek ak aay yi ci topp yàlla dafa dàq loolu ibnu ishaq nettali mooy li may faral di wax ku déglu vidéo njëkk yi ay ay deux mille deux mille dix sept deux mille dix huit daan naa ci wax loolu ma ne man li ma jaaxal mooy gaa yu bind téere yi ba ñuy bind téere yi dafa mel ni ñoom gisuñu woon alxuraan yàlla dafa wax yonent bi ne ko maanaam tuuteetee ñu fiir la wëlif li nga xam ne moom la ñu wax yu mu jëm ci yow ngir nga sosal ñu leneen maanaam tuuteetee ñu fiir yonent bi. ba mu wan ginnaaw li nga xam ne moom la yàlla wax yu mu jëm ci moom sosal yàlla leneen comme lu mel nii wax yooyu nga xam ne dañuy wax ne seytaane moo ko ko wax yu suñ borom mu ne ko loolu kat su amoon danañu la jàppee xarit su amoon ñoom yéefar danañu ko jàppee xarit su amoon su amoon kon kay mooy amut yàlla wax ne walaw laa an sabat naaka laxadd kiddita tarkanu ilayhim shay'an xalila ci aaya ba ca topp yàlla mu ne ko su fekkoon ne saxal luñ la wala su fekkoon ne dëgëral luñ la konoon da nga jeng jëm ca ñoom donte lu néew la kon kay loolu amut kon kay ibnu ishaq la wax noonu ci téeréem loolu saxul ba ay ñeneen di ko reprendre ñoom ci seeni téere mu nekk loo xam ne lu leer la loo xam ne kenn ku ci ne da koy mën a vérifier man damay wax ne dafa mel ni ñoom nekku ñoon di gis alxuraan kon li xam kenn ku ci ne dem surat 17 mu lire verset 73 ak verset 74 kenn ku ci ne su ko liiree yaa koy gisal sa bopp nga dem liir sax ba yegg ci verset 77 bi ba ci sunnata man xadd arsalna xablaka min rusulina wala tajri li sunnatina tahwila nga xam ne yàlla ci boppam li muy jàngale dafa nekk lu leer mais soo demee ci téere yi maam détails yii foofu la nekk soo demee ci téere yi détails yii foofu la nekk su ñuy wax ne par exemple yonent bi maanaam moom di wax ne comme ni ko ñenn ji waxee gaa yi nga xam ne dañuy wax ci islam te li ñuy wax ci islam ni ma koy waxee jamono bu ne li koy jur fan lañ koy jëlee ñoo ngi koy jëlee à chaque fois ci téere xadis ñu ko jëlee ci alxuraan moo damay faral di wax ne moo du yàgg mukk ba ngeen gis ku liir téereb xadis tuub dugg ci islam du mës a am donte téere xadis yooyu téere sunnit la waaye sunnisme sax ca boppam ñoom ña moom téere yooyu adduna du yàgg mukk ba nga gis nit liir seen téere yooyu tàbb ci sunnisme loolu du ma am ndax téere yooyu la bëri waa na wax yuñ cay wax yoo xam ne ak nite rek da koo bañ ak nite même yow nit ki soo gëmul dara xamoo dara ci yàlla waaye nga am xel téere yooyu danañuy wax yoo xam ne yow mi nga xam ne gëmoo dara yàlla seexlu nga ko yow yow mi gëmut dara yàlla rek seexlu nga ko yow te yooyu su ngeen demee ci téere yi da ngeen ko fekk soo ngeen demee ci téere yi da ngeen ko fekk parce que lu tax ñuy wax naan comme yonent bi obsédé la woon mooy loolu ñuy wax ci wër gi nga xam ne moom la daan wër ay soxnaam ba mënu leen a muñoo sax suñu gisee baax ba nga xam ne daanaka situation bu mu nekkoon dem nañ ba wax ne sax lu comme lu mel ni lu comme lu mel ni i'tikaaf li yàlla wax ne wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid manam lolou nek ci suratu Baqara aya 187 so demé sax ci sen téré da ngay fekk ñuy wax ne yonent bi sax lolou da na def am lolou sax da na def contraire bi nga xam ne ñoom yonent bi manam lépp lo xamne yàlla tere nak ko ci yu bari rawati na li nga xamne dafa jëm manam pour wal len rek ñom fiñ taxawé lépp lo xamne dafa jëm ci affaireu sexe wala nangam lolou mom mom ñom dañuy le contraire yalla day wax lii ñom ñu wax le contraire xam lu jëm ci domaine bobu ñom fowé wuñ ko mom fowé wuñ ko loolu wuñ ko gis ne yoy ay problème la yo xamné nit ñi seen bop dafa war ci ñom ñu bayé ko xel suñ ne par exemple pédophile lan moko waral moy suñ waxé né par exemple ku comme ni koy Aïcha ñu yonent bi dañ koo ko may bi muy am six ans bi mu amee neuf ans mu jël ko ñu naan waaw njam ñu koy wutal layal naan waaw xam nga maanaam jigéen ñi bu njëkk ba ak léegi am na ci ñoo xam ne seen morphologie nangam naanga su ñu amee neuf ans day fekk may na waa yéen même li ngeen di wax su fekkee ne jigéen boo xam ne sax day am neuf ans pubère donte man loolu dëgg-dëgg dinaay dégg euh, des fois ni ñuy xeetu information yi mais gëmaguma ci benn ndax ndax amaguma ci benn ay preuve yu moo tax yooyu moom gëmaguma ci benn man waaye suñ waxee ne maanaam neuf ans nangam may leen loolu moom waxuma ca waaye maye six ans nag loolu kenn da koo mën a layal yàlla mu wax wabtalul yataama hatta ida balagu nikaaha ci suratu nisaa yi may leen sëy dañ koy jot te ki ñuy maye kay mooy ku jot a sëy ku jotagul a sëy duñ koy maye six ans nit da ci jot a sëy bañ koy maye gaa yi ci yooyu la ñuy sukkandiku di wax ne yonent bi pédophile la woon suñ ko waxee nit ñi di tëbaka dal te pourtant la ñuy wax ci yonent bi ñoom ñoo ko jàngale ci seeni téere même suñuy wax naa ne islam diine joo xam ne la diine ju sanguinaire la dañuy rayaate nangam nangam parce que ñoom ñoo jël ay ñoom ñoo jël ay atte yoo xam ne yàlla jàngale ko wala diine ju barbare la lu mel ne lapidation par exemple wala ñu ne diine ju injuste la comme par exemple ñu ne xale boo xam ne maanaam judduwul ci sëy du donnu du nangam du nangam du nangam yooyu yëpp te yàlla jàngalewu ko fen ñu yàlla dogal na def nañ ci ay vidéo lu ñuy wax l'enfant naturel ku dem ci vidéo yi di nga ko fekk nga xam ne yooyu yàlla jàngale ko fenn dañ koy jël bind ko ci seeni téere ba nga xam ne créer benn genre injustice créer benn genre xam ni ñu koy waxee xam nga folie xam li ñu wax folie li ñu wax folie meurtrière wala benn xeetu barbarie lu mel ni lapidation mais wax na loolu loolu ku ko gis sax wal nga xam ne lii yàlla mënu koo digle moom. jël nit suul ko ba mu des bopp bi ñu jël ay xeer di ko xaañ bam mu loolu ko loolu ku ko gis sax xam ne lii yàlla mënu koo jàngale taamul fenn fu ko yàlla jàngale far yàlla dogal ni yëpp def nañ ci vidéo li ñuy wax l'enfant naturel ku ci dem yàlla atte yi nga xam ne moom la jàngale ci loolu wax nañ ko te atte yooyu wuuteeg li nga xam ne moom la ñuy jàngale nga xam ne moom la ñuy jàngale ci téere yi mu nekk lu leer nga xam ne soo xoolee yi nga xam ne moom la gars yi di wax ci yonent bi à chaque fois ci seen caricature yi nekkul ay mbir yu ñu créé ci téere yi lañ ko jëlee nit ñi nag li ñu mën mooy indigné ñëw ndax dañoo jàpp ne par exemple yonent bi nit su waxee ci moom safaan dañ ko war a rey mais may leen yéen loolu su ngeen demee ci alxuraan yàlla si boppam mooy wax ak yonent bi ci boppam ci ay wax yoo xam ne daan nañ ko ko wax mu koy wax ne ko muñal yàlla musul wax ne yonent bi ku ko ŋàññi nañ ko rey yàlla ci boppam sa waxul ne moom yàlla ku ko ŋàññi moom nañ ko rey yàlla wax ne wala tasubbu alladina yadduhuuna min dunillah fa yasubbu llaha adwan bi gayri hilmin mais ba tey waxul ne nañ leen rey day wax ne bu leen ŋàññi ñi nga xam ne dañuy woo ku dul yàlla su boobaa ñoom dañuy ŋàññi yàlla ci lu dul xam-xam yenent bi ci boppam yàlla wax na ko ne ko wala xad naalamu annaka yaddiixu sadruka bi maa yaqul wax na ko ne ko wala xad naalamu annaka yaddiixu sadruka bi maa yaquluun maa yàlla dana ko xam nañu ne ne yow say dënn da xam nañ ne yow sa dënn day xat ci li nga xam dañ koy wax waaye mu ci tegal fa sabbih rabbika wa kun min as-sajidin wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ñaata yoon la yàlla wax ci alquran yonent bi ne ko fasbir ala ma yaquluun muñal li nga xam ne moom la ñu lay wax nga xam ne yonent bi lañ ko daan wax ana boo xam ne sax koy waxee lu nga tegal wax jurhum hajran jamila muñal lañu lay wax te nga gàddaay leen gàddaay gu rafet waxu sax xam nga yàlla waxu ko sax na ko maanaam te nga gàddaay leen waaye dana ko te nga leen gàddaay gu rafet am na gàddaay gi sax daa am nu mu war a mel daa war a rafet lii la yàlla waxoon yonent bi yonent bi bàyyi koo fi ay nit ñëw di wax ne ku wax dara yonent bi dañ laa war a rey waaw xanaa yàlla mi yónni woon yonent bi moom moo ko waroon a wax motax yi day wax nit ñi di ci bayyi xel mbir yi ni ñi ci wax naan li baxna ki nonu islam na nangam dafa wax nit ñi ñu dem di gestu li ñu gëm ndax yalla li wax ci alquran dafa leer wala taqfu ma laysa lak bihi hilmun inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ku dem ci surat 17 aya 36 dang ko fek bul top lo xamne amo ca xam-xam ndax akuk akum gis akum xel lii dañ koy laaj kon nit ki warul ci yow ngay topp loo xam ne amoo ci benn xam-xam même su nit ñi di indi wu sax balaa ngaa indi wu demal gëstu ndax lii war naa cee indi wu waaw wala déet wala demal gëstu ndax kii suñ ko rayoon wala ñu gaañ ko wala nangam ndax war naa caa bég wala déet te loolu ko am xel war nga xam ne nit suñ ko rayee waroo caa bég nit soo amé xel war nga xamné par exemple nit ki suñ ko gagné waro waro caa bëgg raw su bay wax nak ray moy ray ko xamné ray ko ci de nga xam ray ko ci deug tax yàlla wax wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq illa bil haqq xam ta duñu ray bakkan bo xamné yàlla dako koo ludul ci deug sa di ka bakkan suñ koy ray dañ ko wara ray ci deug moy li nga xamné yàlla dafa wax ne li ku ko def nañ ko ray te loolu foo leen ko fekk ay àtte la yoo xam ne pour société bi la ndax damay wax ne yàlla li nga xam ne dafa dox diggante moom ak mbindeef yi loolu moom doo doo fekk ci alxuraan mu indi ci ab àtte boo xam ne nit ñi ñoom ñoo war a tege sentence boobu nit kooka comme ci misaal comme ni ko téere di jàngale bokk te li yàlla jàngale di wax naan ku bàyyi julli nañ ko di wax naan xaw ma maanaam uh, kii ñu tudd waaye ku bàyyi julli ñetti fan dañ ko war a rey ku bàyyi diine maanaam tudd ko soppi diineem dañ ko war a rey loolu kenn du ko fekk ci alxuraan ndax julli nit ki koy def diggante moom ak boromam la diine ku ko jàppoon bàyyi ko diggante moom ak boromam la te yàlla lu wax ci alxuraan mooy laa ikraha fi diin diine amul forcé te nit ki soo ko waxee ne ko soo bàyyee diine ji dañ lay rey yaa ngi koy forcé te yàlla li mu wax ci alxuraan bokk na ci tamit alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur dëgg ci sa borom lay bàyyi ko ku mu soob nga gëm ku mu soob nga weddi li ñuy wax ne sax ku soppi diineem nañ ko rey dafa souvent su ngeen demee ci vidéo 21 maa ngi ciy wax loolu li yàlla wax de inna alladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdaadu kufran gaa yi xam ne li yàlla wax ne gaa yi nga xam ne dañoo gëm ginnaaw gi ñu weddi ginnaaw gi ñu gëmaat ginnaaw gi ñu weddi ginnaaw ñu dooleeku ak kéefar may leen su fekkoon ne nit ki su gëmé su wédé dañ koy ré kon su boba kon summa amanu summa kafaru summa zadu kufran ga ca top lu mu fay def def fa dara di kon kay innal alladina amanu summa kafaru tip ray nañ ko kon waye summa amanu summa kafaru summa zadu kufran kon lu mu fay def mais len yi yep ay mbir la yo xam yàlla da koy jàngale ci alquran waye nit ñi manam jému ñoo xam dañuy topé rek te suñuy topé lañ leen di dugal ay erreur ci lañ leen di doxlo ay erreur ci lañ ñu ci moom lañ leen di gëmloo ay erreur moom lañ leen di fasloo ñu jàpp ne ñoom ñu ngi ci dëgg fekk na ci réer gu mat sëkk lañu ne te réer googu li leen ci mën a génne lenn képp la muy dellu ci téereb yàlla lu mën a xew su teewee balaa ñu caa def dara nañ dem xool a ah, lii kat lan la ci yàlla wax su ko defee duñ leen induire en erreur. te it duñ leen dugal ci réccu nga xam ne doo def dara pare na ah man kat lii su ma xamoon lii nàngam parce que yàlla dana la bul topp loo amut xam-xam loo amut xam bu ko topp loo amut xam bu ko topp nga xam ne yàlla loolu la jàngaleel boppam kon nag li am solo mooy nit ñi bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax yenn détails xam ne mbir yi lu mel ni mbiru Salman Rushdie bi exemple kese la ndax fi nga xam ne foofu la tombeel ci jamono bi waaye moo xam mi mbir yi weesu ku mel ni ma mbiru Omar Sankharé boobu ak mbir yi nga xam ne yëpp maanaam am na ci yu mel ni ba ci sax rawatina Moustapha jaxate boobu wax boobu mu waxoon fii te wax boobu mu waxoon loo téere yee ko bind yonent bi di wax ne ay waajuram ñu ngi safara ci téere la ne ci téere la ne ay waajuram ñu ngi safara ci téere la ne premier ministre Inde bi li mu waxoon mooy li ñu wax ne yonent bi pédophile la loolu noonu mu waxoon ci téere la jóge yonent bi ñoo ngi ko may Aïcha bi muy am six ans mu ngi ko jël bi muy am neuf ans kon du lum ci téere yi la ne te yii yëpp nekk ay accusation yoo xam ne wala ay calomnie yoo xam ne maanaam fi mu jugee mooy ci téere xadis yi wala ci téere yi nga xam ne moom la nit ñi bind tey wax na ñoom ci diina lañ nekk moo tax may wax ne suñuy wër noonu islaam dëggi-dëggi noon nañ ko xool ci ñi nga xam ne ñoo bind téere yi nañ ko xool ci ñi nga xam ne ñoo bind téere yi suñuy wax dëgg-dëgg noonu islaam nañ ko xool ci ñi nga xam ne ñoo bind téere yi suñuy wax noonu yonent bi dëgg-dëgg noonu yonent bi nañ ko xool ci ñi bind téere yi suñuy wax ñi nga xam ne ñoo gëmadi yonent bi dëgg-dëgg gëmadi nañ ko xool ci ñi nga xam ne ñoo bind téere yi ñi nga xam ne ñoo ko joxo di cër dëgg-dëgg ñàkk jox ki dëgg-dëgg ñàkk jox cër nañ ko xoolee ci téere yi ñi nga xam ne ñoo ko bind ndax la wax ci yonent bi par exemple duñ ko wax ci seeni baay duñ ko wax ci seeni maam te lu ci bari nag ay soxnaam lañ cee taxal mu mel ne ay soxnaam ñoo daan ñëw di wax ay vie privée te soo demee ci alxuraan su ngeen demee ci sootu taxrim dinaa faral di ci joxe exemple boobu sootu taxrim su ngeen fa demee yàlla la muy wax yonent bi ak i soxnaam nga xam ne loolu sax si vie privée am la yàlla tuddul sax problème bi nga xam ne mooy li amoon yàlla tudd ko benn yoon maanaam ñooñu am na lu ñu def yàlla xibaar na ko yonent bi yonent bi xamal leen ne yëg na ko ñu laaj ko ki nga xam ne moom ma ñu laaj ko la ko xamal mooy leen yàlla moo ma ko xamal mais yàlla duggul sax ci problème bi ci fond problème bi di dugg di jeq yàlla def ko te soo demee ci seen ci seen téere yi nag da ngeen koy fekk. duggu kër yonent bi di lijeenti ki diw mi la mu seqoon ak diw nam ko doon seqeeg diw nam ko defee woon ak diw non la fa mel te yi yep nit ñi dañoo wara bàyyi xel li xelaat ci deug deug deug deug deug li ñuy wax islam dara boole wu ko ak li ñuy wax sunnisme ak yeneen xeetu xaaj yëpp islaam téereb yàlla moo koy jàngale te du ngeen fa fekk xeetu wax yi amu ca xeetu wax yii du ngeen ko fa fekk lu koy weddi sax moom ngeen fay fekk waaye ñi bind téere yi dafa mel ni ñoom seen bopp ba ñuy bind téere yi si boppam gisuñ woon alxuraan am na beneen mbir boo xam ne sax lu garaaw a garaaw la maam ba ci yonent bi li ko yàlla di dànkaafu naan ko walaw walla alayna baad al axaawil la axadna minhu bil yamin summa laqataana minhul watiin fama minkum min ahadin anhu haajizin yàlla li muy wax yonent bi naan ko soo ñu waxaloon yenn ci wax yi danañu la jàpp ci sa ndeyjoor dagg sa awort mi sa siddutub xol su ngeen demee ba tey ci téere yi ñoo ko nettali loolu mën naa leen cee jox ay xadis yu bari ñoom seen bopp dañoo jàngale ne yonent bi ci boppam dañ koo empoisonné mooy dañ koo mooy dañ koo poisonné te bañ ko posonee moom ci boppam mooy wax ne poson bi dafa dagg awortam mu mel ni la ko yàlla doon dànkaafoo moom ci boppam da koo def te dañuy wax ni ndaw si nga xam ne moom moo ko maanaam moom moo ko posone nga xam ne mu ngi tuddoon Zeynab ibn nga xam ne mu ngi tuddoon maam mu ngi tuddoon Zeynab bint alxaaris dañuy wax ne Zeynab moomu biñ ko laajee dafa wax ne da doon nattu ngir xool ndax yonantu la wala buur la su fekkoon ne yonentu la su ko lekkee du ko wàññi dara waaye su dee buur la su ko lekkee dina ko wàññi dara te ñu ne loolu mu lekkoon moo ko rey mu mel ni kon ndaw sa kon da ko doon nattu waaye bi mu ko nattoo gis na ne kon du ab yonent te lool ci téere yi la ñëw <laughs> mu doon du garaaw te loolu ci téere yi la ñëw te xadiis yi incha allah danaa leen ko jox ngeen xool ko mu nekk lu garaaw. mu nekk lu garaaw mu nekk lu garaaw loo xam ne ci téere yi la ñëw lu garaaw a garaaw a garaaw loo xam ne yow soo koy wax nii sax yow da ngay jaaxle yow nga xam ne ñoom seen téere yi saxal nañ ne ndaw si nee daroon doon natt yonent bi bi ko nattoo yonent bi lañ ko doon nattoo moom da caa daanu ndax ndaw si nee da ko doon natt xool ndax yonent la wala buur la su doon yonent la du ko wàññi dara su dee buur la da koy rey mu rey ko tax feebar na ko lu yàgg doog ko rey am na koo xam ne ñu ne ñoom ñoo bokkoon di lekk kooku moom ca jotaay ba fa la deewee moom ginnaaw gi loolu feebar na ko te loolu te moom it moom ci boppam ñu ne yonent mooy wax ne lii dafa mel ni sama ci ñu tudd waaye mu ngi dagg sama aorte bi wala moom moo dagg kii dagg na sama aorte bi ñu ne loolu la yonent bi ci boppam di waxal boppam. xam nga lii nekk ay affaire yu garaaw a garaaw a garaaw yoo xam ne doy na waar te yii yëpp nag ci téere yi la nekk. te yii yëpp nag ci téere yi la nekk te téere yi nit ñaa ngi koy jàng di wéy duñ bàyyi xel détails yi wala ñu ci bari sax jànguñ ko ndax ay consommateur lañ dañuy toog rek ñu leen di wax ñuy jël di dem te point yii di leen ko mës a wax te lii nag yenn exemple rek la ci am na yeneen i mbir yoo xam ne it mu ngi ci seen téere yi waaye bu mujj bii nag man moo gën a garaaw ci man ndax la ko yàlla dànkaafoo ci sóoratu alxaqa muy surat 69 ku dem ci lu commencé aaya 38 ba aaya 47 44 47 kon euh, nunti ku fa dem gis yàlla la muy dànkaafoo yonent bi foofu ñu ne yonent bi ci boppam nee na looloo moo doon dagg mu mel ni kon moom dafa waxal yàlla loo xam ne waru ko koo waxal mu nekk lu doy waar waaye nag sant yàlla yàlla yàlla def tawfeex rek yàlla def lu kawe jot macha allah ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp aax te leen ñuy baalu ñëpp aax te di leen baal aax ñaan yàlla mu boole ñu jéggal xam naa ne am na ci wax yoo xam ne dana doon lu rëy lu dina doon lu rëy ci nopp ñenn ñi wax yi nga xam ne jot nañ ko wax fii waaye xam leen ne nag looloo nekk ci téere yi xam leen ne looloo nekk ci téere yi ñiy def caricature yi créé wuñ ko inventé wuñ ko ci ay téere lañ ko jëlee te téere yooyu ñi ko bind nee nañ ay jullit lañ te loolu mooy li am solo dëgg nag moom dëgg rek la كون ما شاء الله سنتي يالله يالله يالله ديف توفيق ما شاء الله جيرين جيف والسلام عليكم